Barcelone. foofu la réew mi toll ba tey yaa ngi si émission fi mi toll te ñoo am équipe bu baax a baax di fi dalal koo xamante ni je crois euh, foofu ca euh, Seneweb télé bi nga xamante ni je crois que fi mu toll ni moom je crois que il n'est plus euh, média boo xamante ni je kenn ku ne dinañ ci wax nag si kanam parce que loolu di média yi ci élection yi nga xamante ni ci lañ jël mais Ahmed beneen bi nga xamante ni bëgg naa ñu waxtaan si mm-hmm. muy un président bu am 44 ans mm-hmm. histoire bu Afrique bëriwul wala bokk su monde bëriwul sax ñu am euh, un président aussi jeune. Mhm. ko xamante ni ki nga tugg léegi Ousmane Sonko moo ko euh, lu ko woon demal nga euh, ki tabb naa la nëgë ni daaw Bassirou Diomaye Faye mi moom ci kaso bi. Mhm. actuellement moo nekk au pouvoir donc historiquement un peu en tant que jeune d' abord nooy jàngatee l'homme d'abord Bassirou Diomaye Faye et puis le président. waaw lu ma kontaan xam nga euh, Sénégal fii dañu bëgg a mës a gëmloo ne c'est-à-dire ndaw mënul dara day topp ndigal rek day voilà day am kilifa day topp ndigal day def nii ndaw matul kilifa daal ñun loolu lañu suñu société loolu lañ ñu mës a bëgg gëmloo. Mm-hmm. j'ai l'habitude de donner l'exemple de de Kylian Mbappé bi mu nekkee Monaco. Mm-hmm. Euh, quand l'entraîneur fàtte naa tur entraîneur bi. bi mu duggee match toj ko dem match man Manchester City Ligue des champions toj ko entraîneur bi delloo ko ci banc bi mu laaj ko lan moo tax moom footballul su fekkee performance moo tax muy football moom dafa war a football bu fekkee nag âge moo tax muy muy muy football naka ko wax moom mu dem feneen foo xam ne mën na fa am temps de jeu parce que moom footballul selon âge am day football selon ay performance donc ñun fii dañuy gëmloo ne xale nga matoo kilifa matoo dara mënoo dara alors que. Euh, warul demee noonu léegi nag à travers euh, le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye euh, mag mën naa jiite xale mën naa jiite et je pense que ne euh, il était temps que classe politique bi ñu raxas leen euh, j'étais pour que ñu ci bari ñu dem retraite jox seeni numéro 2 lu jafe am na am na acte boo xam ne Ousmane Sonko ci lii mu def war nay war na yee ñu bari war na yee ku mel ni Idrissa Seck war na yee ku mel ni Khalifa Ababacar Sall euh, que ne à un moment donné il faut savoir donner euh, le flambeau nga jox ko keneen pour mu ñëw ci kaw nga ba doog ko jox nag ba pare seetaan ko parce que loolu lañ fi tàmm gis par exemple euh, Abdou Diouf donné la flambeau à feu Ousmane Tanor du parti socialiste mais daa dem après toog di ko seetaan mën nañoo wax ne ab Ablaye Wade loolu la xañ ay ñoñam ba tey ji PDS bu deewee lii Ousmane ko def moo ko tëwoon xalifa Sall en 2019 su defoon nii tànn kenn biir taxaw senegal amaana jamono jooj doole ji mu amoon ñu jël réew mi mhm. defu ko tey jii nii li may xaar ci ñoom moom mooy ñu démissionné seen bopp parti jox ndaw ña fa nekk Khalifa Sall fi mu toll nii war na mën a bàyyi Idrissa Seck war na mën a bàyyi. jox parti bi keneen dem bokk ci saage yi nag ci magu parti bi mm. waxuma jox leen ba pare toog di leen seetaan parce que bi mu joxee Bassirou ba pare dafa wàcc ci terrain di ko campagne al toogul di ko seetaan mm-hmm. jàngal na leen ñoo ko jiitu ci politique waxuma moo leen gën a xam politique mais sur ce tact là précis jàngal na leen lan mooy politique mm-hmm. et war nañ ko ci war nañ ko ci topp waaw war nañ ko ci topp beneen bi nag mooy damay dégg gars yi comme ma doon wax sànq bëgg ko def Euh, koo xamante ne du nit. Hmm. Euh, ay il est généreux il est nii il est naa il est nangam l'acte fort ah. mais lu tax ñu bëgg koo tudd générosité ñàkk pexe la manuma bokk ma jox ki mën a bokk loolu générosité la loolu ñàkk pexe la. <laughs> looloo fi sës. Ah, mais moo naa bay wax de moo naa bay wax jox jox keneen de. nan lay def mënoon naa jox keneen. ba tey joxewul boppam loolu du générosité ñàkk pexe la mënul bokk mais c'est que gars yi parfois maanaam fi ñuy teg nit ki maanaam nit kese la saa yi dafa ñàkk pexe mënatul bokk mënatul bokk xam na ne mënatul bokk. éliminer nañ ko. si Ousmane Sonko ak ah, oraab bi am. Ah. Ousmane Sonko ba personne ne pensait que dina bëri bokk yi. waaw léegi ba mu mënee bokk est-ce que jox na keneen. loolooy générosité mooy ma am. Ah. soxla ko. déggoo ñu naan la booy maye sax mayel loo soxla. ak lu baax ak li nga gën a bëgg. waaw ma am portable bii. moom cundug may la ko. waaw loolooy générosité waaye bàyyi ba am yeneen fukki portable doog la ko jox wala portable bi yàqu ba pare ma doog la koo jox. wala portable par la force yoon ñëw na nangu na ko ci man ma naan léegi portable may naa ko <laughs> may naa ko daaw. dafa ñàkk pexe kaw ma ko demaat. ñàkk pexe la nit ñi du ñu waxante dëgg fii en fait de quoi ils ont peur demande chaque fois. xam nga lan mooy générosité ma jox la générosité politique. waaw kii déjà faloogul woon. waaw waaw daa bu bu générosité nii nii poste ministre bu ne woon baax na nañ ma ko joxal euh, euh, euh, par exemple un ah, El Malick. voilà c'est c'est de la générosité nag. parce que am nga pexe yi kenn disqualifié wu la mën nga ko jël nga ne noo mën naa ko jël mais naa ko jox keneen mais yow manoo jël da ñàkk pexe moo tax nga jox keneen. Léopold Sédar Senghor dafa mën a yor nguur gi yor nguur gi woo Abdou juuf jox ko looloy générosité lan moo ko empêché woon mu continuer mandat am rien di tout waaw ah, looloy générosité damay dégg sax gars di analyser ba ci plateau yi am na rek ku ma invité barki démb naan musul am ci histoire politique mais li Léopold Sédar Senghor def saa waay c'est quatorze mille fois mieux toog ci nguur lu kenn mës a gis Afrique nga bàyyi nguur gi jox ko keneen waaw ah, looloy générosité ko xam ni yaa ko jàngal sax waaw koo ñàkk pexe pexe yaa ngi fi woon bii ñàkk pexe la mooy mënatoo dem. Hmm. nga xool ki mën a dem nga jox ko. loolu générosité kon ni nga ko jàngatee est-ce que kon day dëggal ni li Sonko fexe ba nekk premier ministre maanaam bëgg na chaque fois ni man Bachir maa ko jiital rek donc dama koy taxaw jàppale ko parce que Sonko ñu bëri yaakaar ni est-ce que dem nekki njiitu président assemblée nationale mais ñu taxaw ni may may le le PM par décret. non par par par par bon si fee en tout cas. waaw gëw ma ne loolu la bëgg wane. man générosité bi rek laa àndul mais ci fee yi ma gis muy doxale gis naa ne wax dëgg yàlla il se il se s'est mis un en retrait depuis euh, ñu génn kaso ba léegi. muy wàññi na discours yu bari euh, fësatul trop. Mhm. fësatul trop biñ ko falee premier ministre sax nga gis ne moo commencé fës. Mhm. mais ci man ci ba ci poste premier ministre bi. loolu sama xalaat la li may wax ni sama xalaat la mooy su ma sañoon mu nekk ci ginnaaw mu mu mu mu mu sori te fekk te fekk te fekk soriwul cest à mu bañ a nekk d'une manière officielle mu jege mu jege la président d'une manière officielle en tout cas man man man man man loolu loolu souhaité wu ma ko woon parce que yombul comme tey jii nii Tange ni mu nekkee nii sa kilifa ngeen war a tase feneen yow nga nekk fa kilifa mooy rôle yi inversé wu su Tange amul xel sori la tuuti rek mën na yàq dara ci gestion bi wala ci management bi sama xalaat laay wax mën na bañ a demee noonu tamit parce que fii Sénégal moom tam ñu naan moo ko fi waxoon ak yooyu sama xalaat laay wax mën na bañ a demee noonu mais man ci li ma jàpp pour que le président nekk à l'aise entièrement ci ministre bi ci ci conseil des ministres ba conseil interministériel yeeg yooyu yenn affaires yi mu war a présider kii sori woon ko de loin mais jege ko ci hmm. waaw sori ko ci zaahir jege ko ci baatin xaw ma nu ma ko mën a waxee noonu man loolu laa gënoon option boobu laa gënoon gis que war a bokk ak moom ay jotaay ki war a ki war a nekk kilifaam hmm. pour man psychologiquement c'est un peu c'est un peu gênant kon tu mën nga mën nga nga xaw a ragal naan dans les prises de de de, de euh, décision après Sonko mën na am au-dessus un un peu ci par rapport ak Diomaye na ko man na mën na bañ a demee noonu mais mën na mën na ko bañ a mettre à l'aise daal waaw mën na ko bañ a à l'aise ah. su su su waree def yenn yi man daal lu ma gisoon mooy par exemple manoon na mënoon na nekk ministre ministre d'état conseiller à la président ou ministre un conseiller spécial du président ou ah. genre affaire yooyu daal mais di bañ a bokk ak moom ci yenn yenn jotaay yi bàyyi ko kilifteefam totalement quoi hmm. loolu laa loolu laa loolu laa ko jël ay joxe la liste officielle du gouvernement bi ñu ngi ko xaar démb à 15 heures finalement ba léegi xamuñu ñan la Sonko fas yéene choisir parce que Sonko mooy choisir parce que moom mooy le premier ministre euh, Sonko ñu mu doon waxee au début ci ay vidéo mi yaakaar ni Sonko bu yoree nguur wala bu nekkee ci nguur euh, yore dem li muy gouverner dina metti yaakaar ni Sonko indi seen genre alxatir boo xam ne daal liggéey rek laa laa sant amul caaxaan amul dara. waaw moo koy wéetoo de temps bu leen mayul woon fii jàmm ku ku ku ku yëfam di yàqu moom maa amul benn nit bu ñàkk fayda maanaam dee ma jox may lekk dee ma jox may naan moom ma yor ma bés boo bëggee toog sama diggu bopp bi rek ma wan ne la fii maa ko moom ah mais keroog ci discours am Sonko première fois ba dem nee na caaxaan jaaxaan na liggéey laa fi liggéey lañ liggéey lañ <laughs> lañ woote avec un ton bu xaw a dëgër waaw mais loolu mën na ko wax jawriñ yi pour ñu gën a ñongal seen liggéey wala ñu gën a def li ñu xam mais na ko wax ni doon caax xam nga réew mi parfois maanaam si seen si seen wax nit ñi dañuy caaxaan sax ay caaxaan la ñan ñoo doon caaxaan. am ah, ñan ñoom dañ jàpp ni ñi fi nekkoon liggéey dañ koy caaxaan ñi fi nekkoon li ñu def baaxu sànq nga ba ñuy ba ñu doon tàmbali. non nee naa sur sur le plan sur le plan sur le plan judiciaire il y avait beaucoup de à faire <laughs> mais sur sur d'autres nañ ma wax. en tout cas ñoom sax dañ ko daan wax ñoom Macky dañ daan wax ne eh, mënuñu ñoo critiquer si suñu bilan léegi wax ma yow ci 19 candidats yi kan nga doon dégg muy critiquer le bilan Macky Sall le bilan matériel en tout cas kan hmm. mosoo dégg un politicien bu toog ci télé bi di critiquer Macky Sall sur son bilan. matériel quoi ay e-, infrastructure doo ko dégg li ngay wax mooy justice bi doxul. dañuy jaay doole yooyu rek ngay dégg. dëkk bi cher na dëkk bi cher na ak nangam ak naam loolu rek lañ lañ daan ah, xaar ci côté boobu c'est-à-dire dëkk réew xam nga la la kii da koy jële fii indi ko ba fii kii fekk ko foofu yóbbu ko feneen am na fu ko Macky Sall jëlee indi ko fii ñoom nañ ko jëlee foofu Abdoulaye Wade moo ñu xamal autoroute à péage. oui Macky ñëw tàllal ko yóbbu ko Touba. Hmm. ñëw ci peggu autoroute yi mu def ci ay stade ak def ci leneen ak leneen ak. di indi ci BRT indi ci TER indi ci leneen. waaw ñoom nañ dañ leen di xaar ñoom ñu defaral ñu terrain bi mu wër Sénégal may commencé yeewoo fi 8 heures dem Tamba 10 heures fekk ma fa ma liggéey Tamba wàcc 18 ñoo ñëw fanaan sama kër Dakar dañ ko yóbbu foofu après nag comme li ma la wax sànq. maa mën maa mën maa mën waaw ba jàkka jaa ngi noonu. dawal noonu dañu xool. yàlla xam na ne démb la discours du président Bassirou Diomaye Faye. xaaruma ci dara. parce que xam naa ne li ñu waxoon ci campagne bi bu ñu ñëwee moom lay waxaat. samay nopp dama ko fatt samay bët laa tijji nañ ma won <laughs> jaratul ñu ñuy wax. ay caaxaan bi jeex na ak ay toog muy dox ak ay nangam ak nangam non nañ ñu wan maam wax nañ ñu assez pendant plus de cinq ans. boo calculer ñoom ba ñu amee parti ba léegi deux mille quatorze ba léegi c'est c'est combien d'années c'est dix ans. ñu ngi ñuy wax ñii mënuñu ñii xamuñu ñun ñoo mën ñun ñoo xam maintenant wan nañ wan wax ji jeex na. da ngay maye temps de grâce wala parce que nee na leen jox bu fekkee ndàmboo ci sa plateau la laa ko déggee sax mu ni. bu Sénégalais yaakaar ne dañuy ñëw rek yóbbu ci saa si. waaw état nag nu muy doxe nag c' est des procédures et y' le calendrier de l' état avec ses lenteurs et tout ça là euh, comme disait un major pour ne pas le nommer major Kandji. Mm-hmm. déjà budget bi nga fi fekk c' est déjà euh, attribué nañ ko fu mu war a jëm ba pare da ngay ñëw nga fonctionner ak moom rek mënoo ci changer dara amoo sa budget bopp li nga bëgg a doxal yow amagoo budget am donc. Mm-hmm. il faut nag ñu xam ne un an bi ils peuvent rien peut-être euh, côté institution yi ñu indi yenn yenn changement yi foofu surtout côté justice bi pouvoir bi président bi amoon yëpp ñu wàññi ko hmm. yooyu mënees naa ko xaar mais à part ça mënoo mënoo xaar grand chose loolu moom dama koy dénk sama bopp dénk ko sénégale yëpp mais après nag on a bi fi Macky Sall nekkee comme li ma daan wax rek ñoom bi ñu nekkee ci opposition bi bu ñuy xoxatal nit ñi di tiital nit ñi pour ñu bañ a wax ma ne leen en tout cas man ki yor armée bi yor RTS yor pouvoir yëpp. sëgam moom laa faalewul mënumaa tee wax <coughs> waxtuma laa ki nekk ci opposition bi mhm. maintenant ki nekkoon ci opposition bi même bu jëlee position wu ki yoroon armée beeg yépp en tout ñu tray wax mhm. ñu ngeeg suñuy gët liñ ñu diggoon lépp enregistré nañ ko jàpp ko mhm. bu doxee alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na dox su doxul dañuy taxaw fii ne doxul ne ak prix bu ñu mën a coûter